Ahmadou Bamba kenn la Ahmadou Bamba kenn la Ahmadou Bamba kenn la Ahmadou Bamba kenn la kenn la mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak mbokki dëkkandoo yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare te di wàccee ziar bi ci ñi nga xam ne tey ñoom la yàlla def ñi suñu bunt ci yoon wi doon suñu bunt ci communication ak àdduna bi te seen tur doon tur woo xam ne nii ñëpp war nañ cee mën a adhéré muy Ahmadou Bamba kenn la TV loolu moom jaratul commentaire ndax lu nit ñi teg bët la léegi doonatul lu ñuy xiyaas wala loo xam ne dañ koy revendiquer pour bëgg rek euh, féete leen ndam ci suñu côté wala ci sunu waa ji ku baax ki ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul léegi lu ñépp teg bët la ndax lépp loo xam ne nii am na ko rek kenn la ci ak njaboot kenn la ci ay taalibeem kenn la ci ci wàllu infrastructure boo xam ni nii dañ ko def ci jihaad ci jaayante ni suñ borom du laaje doomu aadama ne ne jihaad ci alalam ak bakkanam sëñ Touba kenn la ci ndax moom rek moo mën a xëy ñu laajal ko milliard mu mat ci bés bi te infrastructure yi ñi nga xam ne nii doon na ay barabu jaamukaay yu yàlla yépp ñu taxaw ko taxawal ko ci turam bu ci nekk amul boo xam ne nii financement wu état lañ ko defee wala ñu dem laaji azaka ngir def ko ci ay taalibe boppam ñooy yëkkati seenu ñaq di jaayante di ko ci def te ni mu leen laaje seen alal su leen ko laaje seen deret ñu jox ko ko kon joxe alal ji mettiwul ci seeni xol lu neex ci seeni xol la ñu ngi ciy jaare kon ci Ahmadou Bamba Kenn la TV di leen ni nuyu di leen ziar ñoom ñëpp di leen ziar itam nag ci bësam bii nga xam ne ñu ngi ko jub si muy bësub Daaru Salaam té suñu ko waxé ñu bari seen xel di dem ci mam Cheikh Anta Mbacké dëgg la mam Cheikh Anta la jëloon kër gogu ñuy wax daru salam jox ko ko doon ci ci lan motax mu jox ko ko ak naka la ko joxé mam Cheikh Anta la waxaw nek nako fekk ci Gabon ca Mayomba mu dem fekk ko fa ak la nek ci yoon yëpp di doon ci dëgg la mam Cheikh Anta la andalo nit bi muy dem di ci daru salam dinoon ci yegg si dëgg la maam Cheikh Anta moom la woowoon keroog bi nga xamante nii ñëw na ba ci bato bi war a wàcc daf ne nañ ko wool maam Cheikh Anta Mbàkke ci la ko waxee nag màggalu Daaru Salaam bi ko maam Cheikh fekk ci bato bi la ko ne li ma yenn woon jëm ci liggéey bi ci géej gi bi ma ñibbisee maa ngi koy wàcce Daaru Salaam kon nag Cheikh Anta demal nga toog fa xaar ma su ma dikkee yenn ku fa yenn ba lu fa waay ñaanati dañanteeg kun ku fa ñew di magal soi soi sooy ñibi daj daje xéral maram loolu it maam Cheikh la ko defal moo tax saa wu ñu waxee Daaru Salaam tur ñëpp euh, xel ñëpp day dem ci maam Cheikh Anta waaye dafa gën a sori foofu Daaru Salaam dafa bokk ci kër yi nga xam ne ñaari kër yi nga xam ne la sàkk woon ci borom borom bi subhanahu wa taala bi mu koy ñaan ci xasida gu ñuy wax euh, kabir da ngay dégg mu ne kon maa ngi lay ñaan nga may ma ñaari kër yoo xam ne dinaa la fa dinaa la fa jaamu ci iman wal islam wal ihsan samay taxamaa maa ngi tudde ñaari kër yooyu nag daaru salaam yi wa Touba daaru salaam ak Touba ba suñu borom jox ko ko mu yëkkatiwaat kër ga rafaatale ko maam Cheikh Anta Mbacke ci bi maam Cheikh Anta am fukki at ak juróom-ñeent jëm ñaar fukki atam kon moom daf ko teel a responsabilisé moo tax saa wu ñu waxee daaru salaam tur xel ñëpp day dem ci maam Cheikh waaye dëkk ba dëkkub sëñ Touba la bu mu ko rafaatalee bindaat na yit wax ne ijël salaamatan te duumu yaa salaam li yewal iyaala fi daari salaam yàlla maa ngi lay ñaan maa ngi lay maa ngi lay ñaan nga defal ma jàmm ju sax ci sama njaboot googu nga xam ne maa ngi leen bàyyi ci daaru salaam nga xam ne njabootu pas-pas gi lay wax te njaboot googu mooy ñim njëkk a tarbiya ci yoon wi bàyyi leen ak maam Cheikh Anta ci daaru salaam ba pare ñaan suñu boroom nag ne ko ijël salaamatan taddumu ya salaam liyewal yàlla fi daari salaam kon këram la ab dëkkam la moom Sëñ Tuubaa màggal gi tamit ñu jëm ci muy màggalu daaru salaam gi lu mat a leeral la ndax dafa fekk ne màggalu Sëñ Tuubaa la Sëñ Tuubaa ñaari bés la am mooy bés bi muy tukki ak bés bi muy ñibbisi mu ne bés bi muy tukki moom suñu borom da koo defar ci ay nattu mbiram yëpp suñu borom da ko defar ci ay nattu moo tax moom nattu rek lay màggal mu ne ginnaaw bi ma màggalee nattu yi nag ngir baatin bi ak la ca xew ndax nattu yooyu moo waral mu ne i jël yi ilaa xew mi sahadatana a tafi naa yow ma jëm xalq niraana yàlla maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi nangul ginnaaw bi nga ma nangulee ne dinaa ñibbi ca dëkk ba ci liggéey bi ma doon liggéeyal maa ngi lay maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi lay ñaan ñibbi gi nag ma ko defal mu doon ak texe ñeel képp koo xam ne sama ñoñ nga wal tak fi naa yow jal xalq niraana na nga muccal nag sama xeet ñooñ nga xam dañ maa topp na nga leen muccal ci bés ba nga xam ne ni ñëpp dañuy tiit ci safara lañ jëm wala àjjana lañ jëm kon dafay mel ne kon ñooñu sëñ Touba di ñaanal loolu bokkuñu ci ñi am njàqare yomal xiyaam ci atte ci ci ci ci ci ci taxawaayu atte ba ndax taxawaay boobu taxawaay bu taxawaay bu taxawaay bu doy waar la ndax ku nekk da ngay taxaw di xaar sab àtte te xamagoo lu ca ne sëñ Tuubaa nee na suñu borom nag na nga muccal sama askan woowu nanga leen muccal ci ginnaaw ñibbi ji rek na leen muccal ci ci ci ci njàqare loolu kon mu doon bés boo xam ne nii lu mu sàkk woon ci boromam la mu ne yàlla maa ngi lay ñaan sama ñibbi nga def ko mu doon texe ñeel samay ñoñ nit nag su amee ndam ci àdduna lay tax mu am ndam coono la waaye su amee ndam ba noppi nag ay mbokkam ak wu askanam ñooy tàccu ñooy ñooy fecc ñooy tëgg ndax ndax mbégte miñ ci am ñoom mu mel ne kon bés boobu mooy bésub mbégte murid yi sëñ Moussa wax na ko nee na la màggal baati nab tukkeem ba ngir napp ya ak bal ak wéetaay ba coono ya ya cax am xanaa moo war a màggal zayrus ñibbeem gi ngir mbégum murid yi kon màggal googu magalum ñaari bëssu sëñ Touba yi la muy bëssu tukki bi mu magalonyo loñu ko ne képp ko xam sama mbég sama mbég la sama nakar sa nakar la su jotaté nag ma ci sant la yalla waaye nak ñun bi ñom ñun ñoo ci wara sant ndax su sëñ Touba ñibbisul woon am mourid dotul jar dara ndax fo taxaw wax fa ñu ne seen nga yomba kon nak gi sunu ndam la sunu suñu sunu banex la sunu victoire la ñu war ko fété sëñ Touba jël mam Cheikh nak def ko mu doon choix wu boppam ne ko nag ma ko kon bés boobu mooy bésu màggalu daaru salaam te mu ko déyee sëñ gaawaan ci biir bato bi la ko déyee lu jiitu loolu it wax na moom sëñ Touba ca maa yomba ne yàlla maa ngi ñibbi waaye su ma ñibbee la sant ci kër ga ñuy wax daaru salaam sant la ci kër ga ñuy wax Touba kon loolu mooy magaluk daaru salam, mu doon nag màggal goo xam ni sëñ Touba da cee wax ne limu won won ci geeg gi yenn bimu mu yenn woon fa la koy yenn ko bimu mu mom seigne Touba fa la fa la dëkkoon barab boobu mu dëkkoon mom seigne Touba moy barabu seigne gawan fiñ denc seigne gawan tay motax wacc ci barab bobu ci bes bobu ñaan fa say soxla baraa nañu def suñu yegge soxla ba safaru bar na ko fay wacc ci suuf sa soxna yi nga xamni ñaar dañuy dañuy dañuy dañuy am njabot nee nañu suñ fa dikkee ñaan ci seen soxla lañu bëggoon am am nañu ko def wax deug yalla ba vérifier ko kon nak bes bu am baatin la bes bu jara magal la mu tombe nak am lu xew ci rew mi ci jamono sax lay wax ndax xew ci rew mi de dana am aduna jamono ju jot ay guerre dina ko yeungal ay bala dina ko yeungal ndax loolu la sun borom dogal waye dafa am lo xam ni lu bax la di jaamu yalla lu bax ak jaamu yalla nak dara war ko soppi dara war ko soppi ndax jaamu yalla bokul ak folklore lu baax yene yéene rek la te yéene bi li fekk yaa ngi ko am suñu borom moom lay moom la gën a fay sax ka jëf kon ñëpp am nañ yéene màggal bés bi waaye mu Nous ak pandémie bi ñuy wax coronavirus euh, mu lëmbe àdduna bi euh, ñu bëgg ñu bañ ñu exposé doomu aadama yi tax na euh, Cheikh Cheikh Bamba ci ki fi toogal di sëñ avons fait yàlla yàlla yokk aw fanam guddal aw fanam te wéral yaramam ñu ngi koy ñu ngi nangu dogal li nga xam ne ni digal li nga xam ne ni moom la joxe te di koy séddoo ak suñu mbokku taalibe yépp nga xam ne nii ñu ngi ñu ngi waroon a bokk ñoom màggal gi ñu ngi leen di wax ne ab ab murit moom li ko jig mooy jëfe ndigal te lii sëñ mu daa joxe mu doon ndigalal na ñëpp màggale fu ñu nekk ku ci nekk ci murit yi nga xam ne nii war nañoo màggal Daaru Salaam nañu xam ne li ñu doon def wàcc ñu waaye ku nekk ci ñun na ko yaatal ci fa nga nekk ba tax na mbooloo mi daan dem dañ koy wàññi maa ngi ci jaar itam nag di sant mbooloo mi daan ànd ak man di dem Daaru Salaam euh, te ñi ko daan jiite ñoom euh, sëñ baaba njaay euh, soxna Mariam juuf ak ña àndal Masek Fall ñoom daayira yi daan dem waa kër Mor Ndiaye ñi daan jóge Dakar ñoom Serigne Fallou Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen ci ziar bu baakha baax di len massaw euh, ci li nga xamni ni ren non la demee té diko bokk di bokk ak ñom bës bi té fu ñu nekk ñu xam ñu ak ñom ñoko and ànd mbokki taalibe yi nga xam ñu ngi sit ñu ko ak ñom ñu ngi yassalat suñu kóllëre sen suñu digënté ñom di di sante, ak ñaanal señ salut Touré mi nga xam ni mo téyé yoon fi ci ciess don bokku ci nitu yalla yi nga xam ni tay tey euh, nit suñ wax nitu yalla bu feñ bu fës moom foofu la toll ndax nit yàlla day am foo xam ne nii dana nëbb boppam waaye daa am foo xam su fa yeggee suñu borom su bëggee nit ñi jëriñoo ko suñu boroom moo koy weer moo koy feeñal tey moom wér na ñëpp mu doon njabootam mu doon ko dëkk Cees mu doon ku mën di doon xam nañ ne la nga xam ne nii daan ko dëxañ ci boppam ngir daan ko daan ko daan ko nëbbatoo tey yàlla feeñal na lépp ne tey jii ci nit yàlla yi gën a kawe la bokk ñu ngi koy ziare di ñaan yàlla guddal fanam te wéral aw yaramam darussalam Salam, itam dëkk ba liko waral di ñu jugee ci xeex boobu ñu dafa won paus koto ci poroxaan te mamour Anta salim nyibisi, ñibisi and ak Lat Joor ñëw ba kadjor mu wutal ko ab dëkk bo xam dafa ci kadjor mu tuddee ko Mbàkke kadjor ndax mamour Anta salim fuñ ko mësa jox rek ñom wax lu fuñ leen mësa jox rek kadjor lañ koy lañ koy mom mamour Anta salim bakay mu jël dëkk bi nak tuddee ko Mbàkke kadjor fa la wacce bi mu wàccee liggéey ci la sëñ Touba wote yoonu murit bi mu wootee yoonu murit ñi ko top ñom seigne Omar Omar Gueye ak ñeneen ak ñeneen ñu bari lañ wax deug yalla bari na ko top ñeneen ñi dañoo dem ñibi ba ndax am jangaleen fa indi won te ñi ñom gisoon nañ li seigne Touba gis ah ci lolu seigne gaawaan mom teela la xassay top seigne Touba ndax wax nañ ne seigne gaawaan bi muy top seigne Touba boba xaadimu rasul ñewagul ndax xaadimu rasul grade la Sering Touba ñewugul ndax boobu sancigul Touba borom jarimit mit ñewugul ndax bobu demagul njaareem kon mën nañu wax ne sëñ jaawaan bi muy top sëñ Touba Ahmadou Bamba Sall la daan top wala mu daan top Mod Jaara kon so xolé ñaari tour yoy ci jamono jooju mom mu ci doon top sëñ Touba gul won sëñ Touba ndax ndax dafa am may yi nga xamni sëñ Touba ko doon tek ci loxol ñiko top loolu fësagul won moy manam ñim daan seexal ndax suñ dee wax ab seex ku ci mës yor dara rek wala nga am barké da nga yeggoon ci ñu seexal la té suñ waxé né mom lañu jëk a daru salam war nga xamné kon Sintuba Tuubaa waneegul ko won ko xamné ni da ko seexal mbolo top ko ba tax na ñu né sëñ gaawaan lola tax mu top ko kon mom da ko topon rek ngir bëgg da ko topon rek ngir luko ko téla won né ko magam ji du ko ñuy du ko ñuy bokal baye loola it bokk na ci wéjuram bu jigéen woo xam ne nii muy soxna Anta Ndiaye doon ku baax ndax euh, soxna Anta Ndiaye maam Maram Mbacke mooy maamam maam Maram Mbacke moo meññ ab taawam mu doon soxna Mati Mbacke mu teg ña Ahmadou mata teg ca Ibrahima Awañang Ibrahima Awañang meññi soxna Astu Mbacke ñu koy wax Anta Ndiaye Anta Ndiaye ji turu turu turu ko topp la rek waaye Astu Mbacke la tudd. astu mbacke jiit lu ko waral mam asta wala mbacke mi mi meññi soxna jaara bu so lañ ko tuddé motax ñu ko astu mbacke waye turu Anta jaay bi nak da am seenu dekkando bu leen waxon ni ginaaw way juroom ji jigéen bon la won lu mu am mu faatu nañ ko ko tuddé moom suñu ko tuddé du faatu hmm, kooka nak mo tudon Anta jaay motax ñu koy wooye Anta jaay mom nak Ibrahima Awa ñang moy bayam Ibrahima Awa ñang maaram mbacke Mati mbacke moy tawba Mati mbacke Ousmane si Alaaji malik si maaram mbacke Alaaji malik si Ousmane si Mati mbake Maram mbake soxna Anta Ndiaye mbake Ibrahima awanyang Maram mbake nga ñew ci mam Balla mbake mi doon caat bi mu meñi mam Mor Anta salim mbake mu meñi seigne Touba mam Thierno Ibrahim ak njabot ga ak ñom seigne Cheikh ku mel seigne Cheikh thiorok seigne Balla thiorok seigne Ahmadou Ndoumbek seigne gawa nak seigne mbake Anta mi di tawba momit soko de tag da nga da ngay da nga nan da nga nan mam Balla Mbacke mam sa mam kon mam Balla moy caat mi waye mam Balla bi mu aduna fekke wul mam maram da fek mam maram làqu mom nak mo meñi mam Mor Anta Sali legi nak kon da ngay gis ne diggante seigne gawan ak seigne Touba domi badja domi ndjay di ci dugat ndax euh, mam mam Anta ndjay mi nga xamni ni mo meñi seigne gawan gaawaan bàjjenu Touba la bàjjenu mam Mor Jaara bu tamit lolou lenn la ci li nga xam ne ni diggante sëñ gaawaan ak sëñ Touba beneen bi ci topp moo doon ne euh, kër ga bi fa maam Astawaala Mbàkke di ñëw di tàbb ci loxol Maam Mor Anta Sali Mbàkke loola indiw ko woon dañoo wax ne am na leneen lu ñu dox doxi woon mu gàntal waaye ginnaaw moom la Maam Mor Anta joxoon cërub njëkk jigéen bi muy njëkke moom la ñuy wax ci ñun njëkke mu ñëwoon doon xaar soxna soosa koo ko ñëwut ah momit mu daldi di laxasaayu laaj ay wéy juróom ne len ndax dama ara eh, dama aram ci ma Mor salim bakke ñu ne dedet mu len su fekke aram araamuma ci mom ngeen daganal sama digante mom man ma tok sey waye gatch gi duma ko ñibi walé kon mom lolo ko indi ci kër ga mom mom moom soxna Anta euh ñu fa fas digante bi mom mu am fa seigne Anta koku moy taw soxna Anta Njaay mooy taaw it Maamor Anta salim ginnaaw gi wax nañ ne am na fa soxna Faati Anta wax nañ ne it am na fa euh, sëñ gaawaan am na fa sëñ afiyam mm, day woy ba yàgg mu ne loolu loolaa waral sëriñ gaawaan di rakk ci bambay jaamam jaam saayir la jaam baatin moo waral mu dib xaddam euh, jaam saayir bi mooy diggante mooy diggante bi nga xam ne ni mooy liy mbokk gi indi mooy li ma doon wax léegi jaam baatin bi nag mooy bi nga xamante ne nii sëñ Touba wala boog ma ne Ahmadou Bamba sàll wala bok ma ni euh, mod jaara ni ko sëñ ni ko sëñ Gaawaan daan woowee ndax señ señ sëñ mom mod jaara la daan wax mod jaara la daan wax moy bi nga xamanteni ni top na mod jaara wala mu top Ahmadou Bamba Sall te mbokam yi di xol ne koku doomi bayam la te yellul ci mom koy topé dim ko topé ba nang wuta jang mbok yi di ko ci def li ñuy wax guerre psychologique di ko xas ki waroo ko la lu am ci mbàkke gi rek am nga ko ndayam gënul sa ndey bàyyi yéen a bokk bàyyi di ko wax wax yooyu nga xam ne nii ay attaque psychologique la day day déstabiliser nit ba benn bés mu topp sëñ Touba topp ko topp ko topp ko ba ñu nekk ci digg àll bi ñoom ñaar mu ne ko man de wax ji ma sama mbokk yi di wax daf maa sonal léegi nag dama bëgg a fay wax ji ni ma bëgg fayee wax ji mooy dama bëgg fii ñu nekk ci àll bi nga tàngal ak weñ ñaas ma ba ma mel ne ñii ñu moom ci réew mi soo ma ñaasee ba ma mel ne ñi ñu moom ci réew mi fu ñu taxawati suñ ne sama doomu bàyyi nga ma ne déedéet ab jaamam laa loolu mooy jaam baatin bi ñu yaakaar na ci loolu lay yem keroog bi muy jébbalu sëñ Tuubaa ay mbokkam a nga fa de mu def acte bu courageux dafa jël bopp dafa jël kaala gu gudd yeew ko ci baatam jox ko ñoom Cheikh amoor Gueye ña fa nekkoon te jotoon a jébbalu ci sëñ Tuubaa ne dama bëgg ngeen diri ma ni ni ni ñuy def ab moomeel loolu laa bëgg ngeen defal ma ko su ngeen ma diree ba ci sama mag ji ngeen jox ngeen jox ko catu kaala gi ngeen ne ko moom moom waaye man bokkuma ak moom bokkuma ak moom bàyyi loolu la jébbaloo ci sëñ Touba sëñ Touba nag boole loolu lépp nag moo tax sëñ Touba ñun ci dimension bi ñu koy waxtaanee dafa xaw a dañu xaw a xuus trop ci dimension spirituelle am mais ci dimension yu nit ku ni mel amul ci humanité su ma nee humanité nag xam nga ñun des fois dañ koy dañuy tëkkale sëñ Touba ak ñi bokkal jamono wala ñuy tëkkale sëñ Touba ak sunu classe gi nga xam ni léegi lañ fi feeñ commencé ku nekk di wootee sëñ Touba soo koy tëkkale da koy tëkkale ak humanité mooy bi nga xamante ni nii yàlla sàkk na ki mu njëkk sàkk ba ci ka muy mujjee sàkk ku mel ne moom ci ci ci melokaan ci jikko ci melokaan ci dëgër fit ci mën ci am courage amul moo tax spirituel bi nag yakun abadan li mumkin loolu daf ko wax mais bi mu koy wax loolu lu ñëw après la ila yaxaadullah ma lam yakun wala yakun abadan li mumkin loolu après la ñëw waaye moom li jur loolu ñun ci lañu war a di di sëgg toujours di ko xool mooy bi muy bi muy julli ci géej gi wàcc ci ndox mi ne ndox mi yàllaa ko sàkk yàllaa ma sàkk te li fekk sama ruug yi yàlla nga koy garanti dinaa taxaw ci ndox mi julli vraiment faate ci bu julli man li man wàcc naa soo gisee ñu naan seexal nañ diwit li ko Sëñ Tuubaa njëkk a seexal naan eh, li mu ko njëkk a gërëm moom ñu naan def suñu waxee ñu ne def na diw def nañ ko ne Cheikh Anta moo tax mu jig ñu naan seexal nañ ko eh, kon li mu ko loolu eh, dimension boobu Sëñ Tuubaa am ci ne sama rakk ji bi muy am juróom-benn at ba léegi mu topp ma nanguut a tàqali kook man mu yëkkati def ko échantillon sëñ sëñ Moussa wax na ko nee na ko yaay échantillon ci yoonu Cheikh Bamba mu def ko mu doon échantillon mooy ni murit ni mu bëgg moom sëñ Tuubaa murit murit mel ko mu def ko ci sëñ gaawaan mooy mën wàllu àddunaam mën wàllu àllaaxiram ndax foofu dafa jara taxaw su fekkee da ngaa bëgg jaamu yàlla rek rek rek rek rek rek defar sa digganteeg yàlla ba nga xam ne nii ku la gis xam ne ab wàlliwu nga wala ku la gis gis gis xam ne ab sëriñ nga te daanoo sa doole soo moytu problème dina am li nga jotoon am ci wàllu baatin am ko ci sa wàllu xam-xamu àdduna di nga dem ba sa wàllu xam-xamu àdduna nga ciy négocier di nga dem ba nangu loo warta nangu loo xam ni sa xam-xamu al euh, sa xam-xamu alxuraan mayu la ko sa xam-xamu fiq mayu la ko mais di nga dem ba nangu ko ndax dépendance ndax sa soxla foog nga dépendre ko ci nit soo demeew tam ba yar sa bopp ba doon ab ba ba mat wàlliwu te sa wàllu sa wàllu àdduna sa wàllu liggéey nga xaw ko soofantal soo moytuwul di nga lekk alal joo xam ne nii su soo ko lekkee suy rees yóbbaale sa sa baati suy rees yóbbaale sa wilaaya moo tax nit toujours dañ ko war a defar ba ni muy mënee gérer digganteem ak boromam ba mën a nekk bokk ci nitu yàlla yi mu mën ko gérer wàllu àddunaam ba autosuffisant ci li mu mënta ñàkk. loolu bokk na ci li nga xam ne moo taxoon Sëñ Tuubaa jóg euh, suñ ko seetloo nag léegi day mel ne. dafa nekk en ak ñun li ñu li ñu nekk di ko def léegi ndax ñun léegi daanaka dañuy bëgg a nekk rek euh, ci aspirant wu wàlliwu ak aspirant wu nekk ab sëriñ te lu lu lu ci mën di doon rek dafa war a ànd ak say say yëngatu àdduna nga mën koo gérer bu baax loolu parenthèse la woon. loolu nag moom la defoon maam Cheikh Anta Mbacke moom la defoon nit maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall ñu bëri dañuy wax ne gis nga maam Cheikh Ibrahima Fall ab taawam suñ gaawaan la ko joxoon. kon xam nga maam Cheikh Ibrahima Fall teel naa doyloo ni sëñ gaawaan mel waaw taawam sëñ Modou Moustapha Fall sëñ gaawaan a ko yar moo ko yar ba ba ba ba ba gërëm ko euh, door koy delloo euh, soo gisee tamit euh, am na doom ku mu ko tuddee muy sëñ Cheikh sëñ sëñ Cheikh sëñ Cheikh Ndigal moom mu sëñ mu sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall moom lu ko tuddee. tudde na ko doom moom maam Cheikh Ibrahima Fall kon moom tamit ku teeloon a fonk sëñ gaawaan la seen diggante ñoom ñaar dafa dafa dafa jege yàndoo woon trop trop trop eh, ba nga xam ne nii lu ci nit kenn di mu sànni def rek keneen day ànd ak def ko soo seetloo ñoom ñaar demee Dakar maam Cheikh Ibrahima dafa am ay kër maam Cheikh am fa kër nga dem Ndar maam Cheikh am fa kër eh, eh, da ngay dégg ñu naan sëñ Ablaye Fall sëñ gaawaan am fa kër nga dégg fa sëñ Ibra Ndar Euh, nga dikk ci centre dikk bi réew mi fii ci Thiès ni fi maam Cheikh Ibrahima Fall amee Daaru Bayra am fi Mad Pencum Falleen kii ci Madina Fall hmm? nga dem gaawaan sëñ gaawaan coloniser ko jël ko jël Touba Toul booba Touba Toul Toul rek la tudd mu tuddee ko yëpp ñoom deewuñ ko lu dul fu ci sëñ Touba am rek dem rek mu am fu mu wàcc ñoom loolu lañ doon doy seen kër yi euh, kon ñu teeloon a xam naka la nit ki def ba doon nitu yàlla waaye mu fexe itam ba nitu yàlla wilaayam mucc ñoom loolu dañ ko teel a xam moo tax ci la leen sëñ Tuubaa formé kon foofu la sëñ Tuubaa bàyyi sëñ gaawaan ci Daaru Salaam jox ko Daaru Salaam jox ko taalibe ya fa nekkoon dem sañ ci Tuubaa ba ndogal bi suñu borom wàcc ci moom ñëw mu war a dem ci géej gi liggéey liggéey bu rëy ba moom mooy bëy bi nga gis ni mu bind ko fii ci sunu ci ci portrait bi ci sunu ginnaaw mu ne mu ne mu ne sababu haybati an allaha araada an anaala min hujjaaha wa an akuna xaadiman fi daw mi wa an akuna wa an akuna shafian li xaw mi wa an fi daw mi dama war a nekk koo xam ne nii bés penc kuy ràmmu laa kuy ràmmu samay ñooñ laa moo tax suñu borom wàccee liggéey tukki bii ci man mooy sababu tukki bii suñu borom wàccee ci man waaye nag loolu maa ngi koy amee wa an akuna xaadiman fi daw mi liggéey rasulillahi kon nag ñu xam ne tero bi muy bawoo fii loolu la wax dig ñu ko bi mu demee ba liggéey bu sotti it mu daan ne comme waxoon na tukki bi sababu xëy ba tiya an allaha mu daal di wax it ne ijël rujo yi na ngeen def yàlla na nga def ko ñibbi gi ginnaaw ba diggoon naa leen ne war na ko na li xaw mi kon nag nag ma defal tamit eh, ñibbi gi mu doon seen sëriñ eh, sandat sandata na muy seen texe kon moom sëñ Touba ci li ko tubaab di waxee en amont et en mooy ci tàmbali bi ak ci ci mujj gi ca njobbaxtal ak ca mujjantal gi yëpp li mu waxoon def na ko mooy liggéey na ba ba nga xam ni eh, tukki bi def na ko mu doon loo xam ne nii def na ci loo xam ne nii kenn mës ta def li mu def ci liñ ko def moom ndax dañ dañu war a xam ne ñun conditions yi Sëñ Tuubaa doon liggéeyee li mu liggéeyal yàlla ku ci tolloon ci ñun sa bakkan ngay dal humanité bi yëpp nag laay wax ku ci tolloon ci loolu sa bakkan ngay tal moom bi mu ci taalee bi mu ci tollee mu ngi yëkkati gratis yi mu ngi koy yëkkati di di di di ko di ko kañ di ko teg foo xam ne nii suñu suñu borom tegu fa kenn mu ngi dugg ci mbooti mbooti mbooti mbooti yi nga xam ne mbooti yàlla turi yàlla yi di ci liggéey di di di di kañ suñu borom di ko tagg di dëkkaaleeg rasulillahi keroog bi ko fa sëñ gaawoon fekkee mu ne ko toogal ci lal bi ndax sëñ gaawoon bi mu duggee rek fekk na fa ab lal nee ci néeg bi nee na bi ko sëñ gaawoon nee toogal ci lal bi nee na mu ne ko du ma ci kaw ngay toog ci suuf nee na sëñ Tuubaa da ko ne samay ndigal kon nga xam ne sëñ tubaa mii lu woon ci sëñ gaawaan di ko digal muy bañ a bi ma toogee ci kaw lal bi sëñ tubaa de ko Cheikh Anta neen ko mbàkkee mu ne ma fii nga lal boobu nga toog de rasulilaay moo ci toogoon léegi di ma wéttali rasulilaay sax moo ma wax ne yaa ngi ñëw rasulilaay nee na ko téyel zaayira mu ma sama baatin te yow ma téyel la sa baatin nga téyel ma sama zaayir xam ne kon sëñ tubaa wéetul woon fa mu nekkoon daal di ko ne eh, moo tax nag ma bëgg laa yóbbu fu la kenn dootul fekk lal boobu nga toog rasulilaay ci toogoon te sooy dem na ko yóbbaale rafaatale ko Sëñ Gaawaan lal ba moom da ko rafaatale da ko rafaatale Sëñ Gaawaan euh, bagage yooyu yëpp nag ñu war ko indi euh, def na Sëñ Gaawaan nekk defi pexe ba indi nag indi na bagage yi bi mu dikkee ma laqat karam naa bani aadama boobu bi mu dikkee la ko la ko móol tasaare ko ci réew mi moom la taalibe yi doon jàng ba suñu yegsiwaan ci euh, bayit boobu ijjël di ju yi laa xaw dañ ko dañ ko daan baamtu dañ ko daan baamtu dañ ko daan bamtu ngir di ko di ko di ko di ko di ko féexale seeni i xol ak di ko bàkkoo euh, yeneen omettre sëñ gaawaan ndax mook sëñ Touba amul fu mu tàqalikoo moom ci omettre sëñ gaawaan ndax moog sëñ Touba amul fu mu tàqalikoo moom ci su ko defee kon mu mel ne ñu ngi nekkoon ci ñibbisi gi mooy li nga xam ne nii moo waral màggal gi ñu jëm si keroog bi ku tedd gi yegsee bato bi bàyyi ko yomba ba yegg Sénégal wax nañu ne bateau bi mu ngi yegg ci 8 heures du matin le costé euh, bi ñu demee ba 10 heures jot quai bi mu ngi fees dell ak ay nit waaye foofu ñu def benn taxaw mbooloo moomu su ñuy wax bariwaayu mbooloo mi mënu woon nekk murid yi ndax boobu murid yi même droit de de de regroupement dañ leen ko tere woon maanaam may ñu woon fukki murid ñu dajaloo moo tax bi ñuy wax ci affaire confinement bi ñu naan dañuy kii ma ne loolu duñu jaaxal ñun. parce que jaar nañ ci ba paré ñu naan dañuy confiner Touba dañuy leen di train ñu dajalo man leen duñu jaaxal ndax suñu ay kilifa yi nga xamni ñoy suñu ay royu kay fofu jaar nañ fa dañ leen waxon ne fukki mourid mayu ñu leen ñu dajalo kon ñi taxawon ci ci bateau bi fofu di xaar seigne Touba dafa bari ñu ci nekkon ñen ñi ay kolër ay wolleur lañ yo xamni ni wolleur wëllëre maam Cheikh Anta mam maam Mor Anta Sali lañu ñeneen ñi ay wolleur yi seigne Touba yo xamni dafa jangado won ak ñom daara ñooñu dañ ko defoon nawle jàpp nañ ne daal lim doon doon jaay ci réew mi mënuñu gëm ne ab euh, jëmm ji jëmm ji dund mooy ñëw ab néew daal la ñuy xaar ñu wàcc ko wala koo xam ni dafa laagoo ñoom loolu lañ doon xaar donc ñooñu kumpa moo leen yóbbu woon am na ci ñoo xam ne nii ay mbokki diine lañu muy ñii ñuy wax tey tijaan wala xaadar dinaa ci ñëwaat ndax loolu amut. du débat du débat c'est un faux débat du lu lu lu lu le piège là, bu ñu tegal amul amul amul les premiers cadres les premiers murs, c'est des cadres ndax Mamour Anta Sali cadre la woon Mame Cheikh antamis Cheikh Sidi Mokhtar Kounta lañ ko tuddee kon ñu ñëk nek cadres ay cadre lañ ndax Maman, Tuubaa si Mamour mu ngi fekk waajuram nekk cadre maam Thierno Ibrahima ak ñoom ñëpp sëñ gaawaan ñoom ñëpp ci ci xaadiriya boobu lañ nekkoon ci lañ fekk seen wéjur sëñ maam Mor Jaara ñoom ñëpp ci xaadiriya boobu lañ nekkoon tijaaniya bi ñi njëkk a jébbalu sëñ Tuubaa ñëpp ay tijaan lañ xam li tax toroxuñu li tax alkuwuñu loolu beneen débat la boo xam ni après tubaab yi ñoo ko instauré suñu biir te ñooñu ñoo dikkoon di ñoo dikkoon di teeru sëñ Tuubaa kon mbolo ma bari won, na macha allah car bari won na lol lol lol. lol lol mais li mbolo mi bari bari touba dañ nañ ko ci laajal ku ñuy wax Cheikh Anta touba bi genn ndax mbolo mi tiital na len ñom touba bi dañ jappone ne su sëñ tubaab dikkee ñaari net ñetti nit ñokoy ñokoy accueillir rek ko ay bagasam ñu xol ben ben ruq buñ ko dugal kenn dootu ko déggati ñu ñew ñu gis fofu fess lak ak nit touba bi tit jaxlé ci lañ nekkon ne ko ñaan sëñ Touba ne ko dañu bëgg nga gaaw wàcc ndax dañuy bañ mbolo mi gëna a bëri nii mu ngi fekk bi mu ngi taxaw jaag jiblu penku wax nañ ne mu ngi yoroon fulk yor yor kamil alquran bi ñu laajtee maam Cheikh Anta ba gis ko mu dugg ci bato bi ram ba jub ba jub ko ne bu mag bi ne ko koku Cheikh Anta neen moko ko man la mu ne ko Cheikh Anta mu ne ko mbàkke mu ne ko lima ma ci ci lion bi di liggéey yépp de suñu borom xamal na ma ne di nga ci am sa wàll dina wàcc sa kaw daal di génn ci ay bagages boppam foofu benn yére jox ko suñ gaawaan ne ko saawu nattu bi dalee sa kaw nag na sol mbubb mi sooy dem wëlbatiku ne ko Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko waat naa waataale wàcc naa wàccaale képp ku ma yaakaar Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko damaa bëgg nga wutal ma lu ma teg ci loxol tubaab yi mom cheikh ne ko ah da nga yi da nga fa won lo amul ba tax nga nga leb len nga leb len xaliss mu ne ko soxla luma len sen dara mam cheikh anta ne kon lan nga digaale won ak ñom ba tax nga yoro len nga yoro len bor mu ne ko déedéet lii ñu ma defal luma ko sa sama bopp kon warloo na ma ñom dara ndax dañ ma yombalal luma mënul won sama bop sen bato bi ma waron di ci digel rasulillahi yegg na ci yalla fo xamni yegg ci rasulillahi fo xamni su won sen bato bi du xeyna xeyna du soti kon nag warloo na ma ñom ak fay te su ma fayul fi yomal xiyam daa len fay motax ñun mënuñu en murid mënuñu en tubaab yi ndax tubaab yi sëñ tubaab moom euh, daf ko daf leen a jàppoon waruwaay ñun mënu moo tax en boobu mënta exister ci ñun mu dimbalee ñu nag afawtu anil ahdaay turan li wàcci man nafaahum li xayri samadan la saw euh, jéggal naa leen waxaat ne afawtu afawtu afawtu anil ahdaay max safi kalkali euh, jéggal gi ma leen jéggal sax de du càggeenu dama ko wax ni rek sama làmmiñ waaye dafa sama yëngatu xol la la bawoo kon lu yéene ju sel la ci am mu ne ko nag na nga ma dem xaar ma daaru salaam ndax fa yenn ku sey yen bi kon foofu la sëñ gaawaan ba tàqalikoog sëñ gaaw sëñ tubaa ci ginnaaw bu ñu fa jugee euh, ba dem ci bureau ba euh, ak tubaab yi xamal ko ne ko ñun kat dañu bëgg signé ak yow daal pacte boo xam doon dëkkaale ak yow ak yooyu yëpp bañ tàqaliko ak fi sëñ war jaar yëpp sëñ gaawaan dem xaar ko daaru salaam ci bi ñu woree yooyu yëpp sëñ def ak ngan ligi daaru salaamat ñi mu daan dimbali moom sëñ gaawaan ndax moom autonomie boobu li résultat bi feeñ na avant fii sëñ bu mag bi di bawoo mooy li ma doon wax léegi ci ab murid dafa autonome ci wàllu àddunaam sëñ gaawaan autonomie moo taxoon mu daan fekk murid yi nga xam ne dañ leen a déshérité woon ndax ku mosaan a jébalu ndeysaan da ngay mel ne dangay mel ne sëñ soirée Euh, jébbalu ndeysaan ñi daan njëkk a jébbalu moom mi ndeysaan ci murid yooyu rek laa koy xool euh, dañu daan dañu daan bàyyee lu waaye am rek bàyyee nañ ko muy askan ak dëkkandoo service ak lu mu mën di doon loo leen di jaay looy loo leen di jaay rek ñoom taxaw nañ ci bàyyee la ko jàpp Sëñ Tuubaa ñooñu nag ndeysaan dañu leen daan tumurankeel seeni toolu tool seeni toolu bàyyi duñu ci am dañ leen daan génne seen kër bàyyi suñ bëggaan a takki soxna dañ leen ci daan teg ay fitna duñu duñu duñ leen may ci seen askan ñooñu nag ndeysaan ñu ci bëri ci ñoom sëñ gaawaan moo leen daan taxawu moo leen daan jox ab dund ah, bëri na ci ñoom ñoo xam ne it ndeysaan ku ci war a jël soxna moo la daan taxawu fexe ba lay war ci soxna si yëpp mu joxe ko ndax dañ leen daan xeet sëñ gaawaan da daan fexe ba di leen jox valeur noonu la nekkee woon ci réew mi ginnaaw sëñ Touba mooy juróom-ñaari at juróom-ñaari weer yi nga xam ne sëñ Touba mu ngi nekk ci géej gi ci loolu la sëñ gaawaan nekkoon ànd kook maam Cheikh Ibrahima Fall maam Thierno ak mag ñi fu ñu fekk murit bu nar a tumburanke rek ñu dimbali ko solidarité boobu dafa amoon ci mag ñi te ñun dafa commencé absenté suñu biir mooy solidarité boo xam dafa dafa entière mooy solidarité boo xam ne kenn ku nekk ci ñun dafay mën a bàyyi darajaam ak moroomam mën a bàyyi alalam ak moroomam lu mu ca def mu soob ko lu mu def mu neex ko loolu nag dafa amatul suñu biir ndax léegi man li ma gën a gis mooy dañuy xëccoo trouble lu matériel ñun murit yi dañ koy xëccoo trouble surtout jeune génération bi dañuy xëccoo trouble ay oto waaw diw oto bi mu wàcc diw diw jasneer bi mu sol euh, diw kër gam tabax euh, yooyu ñun ci lañ gën a sukkandiku te loolu day créer concurrence suñu biir te loolu baaxul mag ñi dañu amoon solidarité entière mooy seen daraja dañ ci solidarisé woon seen alal it ñu solidariser ci ak seen njaboot ba tax na ku ci yëkkati seen njaboot joxoon ko seen morom doon woon problème ci ñoom daal daraja ji tamit ku ci mës gis sa morom rek yaa ngi jàpp ne yaa ko war a sukkal ñu ngi nettali benn xisa sëñ gaawaan kër gu këram gu mu doon tab kër gu mu doon gu mu doon sanc ba yegg si ci maam Cheikh Ibrahima Fall daal di koy woolu ne ko damaa bëggoon nga ñëw ñu dem ca kër ga nga ñaanal ma ca dégg naa maam Cheikh bi mu dikkee ci carrosse bi carrosse mooy voiture yooyu am ñeenti fas ci kanam moom la sëñ gaawaan njëkk a yor laataa mu yor oto maam Cheikh bi mu yéegee ci carrosse bi sëñ gaawaan a ngi toog ci fauteuil carrosse bi mais wormaale ko eh, li mu bokk ak sëñ Touba tax na maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu yéegee ci suuf la toog nga xoolal ak nga xool dimension bi maam Cheikh fa Fall tolloon kon mag ñi dañ daan wormaalante sëñ gaawaan danaan fekk mu doon pesé pesé lourd taxul woon mu soofantal wàllu àddunaam foofu daal ñu ngi ci soññ suñu bopp di ci di ci soññ képp koo xam ne bokk nañu yow yoon wi ngeen baal ñu àq lu ci dëng rek ci sunu càggante la waaye du fi ñu jaarale ndax sëñ Tuubaa wàccoon naa ñun bi ñu yóbboo ci daaray tarbiya yoo xam ne nii kilifa tarbiyakat bu mag moko yor muy cheikh mohamadou fadel mbacke di dom ci seigne moustapha cietu mbacke mu seigne mom cheikh anta mbacke nek ak nek rosbecho daru euh, di fa exploiter ciep ak ay entreprise génie civil ak aménagement ak yoy dal ci lool lañu tarbiya motax ñu ngi koy ziaré fi ñu tok di wax ne ñu ngi di balu ak euh, di di di di julli wat ci yonent bi di ñaanal euh, seigne muntaha mbacke xaadimu rasul mi nga xam ne mooy borom Touba tey ñu yàlla yokk fanam te wéral yaramam di di nuyu tamit di di ziare di wàcc ab ziar ci képp koo xam ne bokk nga Daaru Salaam te di jaarale ziar bi ci sëñ Mor Faati mi nga xam ne mooy xalifa bi ak uh, waa ak sëñ As Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifa bi sëñ Moustapha Ceetu ñu ngi leen di balu àq wasalaamualeykum wa